aujourd'hui le représentant de la famille Daxaba. Euh, d'abord damay wax au nom de la famille di wax ni famille bi papam ak euh, ay frères ñoom ñoo yóbbu corps bi Touba donc nekkuñu fi yaayam et ses sœurs dañoo nekk en état de choc moo tax mun nañu wax ak famille bi mun nañu wax ak presse bi c'est un peu difficile voilà donc euh, ça benn situation bi nga xamante ne. du ma ne sax Ziguinchor du ma nekk sax Grand Dakar kese mais Ziguinchor yëpp moo nekk ci ci tiis vu booy bi nuñ ko nuñ ko abattre voilà noonu lañ ko mënee noonu lañ ko mën a tuddee parce que le verbe sax destiné wuñu ko nit waaw ay mala lañ ko destiné wala leneen donc dafa di li nga xamante ne lu jafe yàlla def nag ñu yóbbu woon ko hôpital dañ ko tiire bal ci bopp ñu yóbbu woon ko hôpital mu mu xeex nag parce que dama koy jaajëfee ci courage am ak détermination am parce que nit ku ñu tiire bal ci bopp doo si saa si di nga wàcc liggéey mais dafa xeex ñaari fan ba ñetteel fan bi quatrième jour bi la décédé donc noonu la fa demee woon voilà mu di jafe li nga xamante ne yéenewuñu ko sax suñu noon waxatuma la nit ki nga xamante ne ñoo defandoo lépp. c'est au niveau de la tête lañ ko dóor ci ci biir dëkk bi ci côté lycée Djignabo bi côté boobu lañ ko dóor bal ci bopp. comme secouriste la booy suñuy wàcc su du ñuy dem front man professeur de PS la ma profession def naa secourisme damay dee damay dee di dem ak ñoom ci terrain bi rien que pour ñu nekk ci jàmm parce que dañoo gis ni tamit. à un certain moment Croix-Rouge gisatul nañ ci terrain bi donc mu di li nga xamante ne tamit doo xam dëkk bi nu muy doxee parce que je pense que en en période de manifestation ou de quoi que ce soit ay yenn organe da leen di gis ci dëkk bi donc bu ma seetluwee loolu jour boobu nag ma xaaral tey ma dem xool xale yi lu ñuy def ci dëkk bi ma wàcc juste bi ma demee ba côté yooyu laa gis ni dégg ay yuuxu ma boobu laa daw gis ni dañu tiire nit ki ci bal bu njëkk bi xamee ma ko woon mais bu ma ñëwee ba tiim ko laa xam ni sama jeune frère la bi nga xamante ne ñoo bokk ci quartier bi boobu laa daw si def li ma war a def de façon médicale pour premier soin ñu mu am ay boo yu fa nekkoon tamit ñu jàppale ñu ñu teg ko ci Jakarta ñu yóbbu ko euh, à l'hôpital voilà donc euh, noonu la foo demee boobu lañ ko jébal médecin yi ñu def ci seen liggéey tamit ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfee parce que gis nañ seen taxawaay depuis le début jusque fii fu ñu yegg si nii. fooguñu woon ni lu xewoon ci ginnaaw dina xewaat mbii parce que suñu toogee tey ba xale mu yor xeer un jeune de rien du tout il a vingt ans mu yor xeer yow nga taxaw de loin nga def une formation en arme et cetera tu sais qu'à une distance à telle distance nit ki soo ko dooree bal day faatu xale bi yor xeer. cette personne la ne ne cause pas une menace nga xool ko ba mu neex la nga dóor ko bal mu wàcc te damay fàttali que ça soit les forces de l'ordre wala bépp mbindeef buy buy dund sur suuf nga foog ne am nga doole yàlla dafa ne ci Alxuraan lépp li nga def lu baax aussi petit que le poids d'une atome di nga ko gisal di nga ko gis sa àdduna lépp li nga def lu bon aussi petit que le d'une atome di nga ko gis na ñëpp bàyyi seen xel nii àdduna c'est juste un passage lu ñuy def ñu ànd ak seen xel xale bu yor xeer munul la dóor bi nga dee ci xaañ bi nga xamante ne xeer bi day traverser une distance balaa mu yegg si sax sa vitesse et est réduite donc lu nekk di xew ci dëkk bi moi je suis pas politique j'ai été représentant d'étudiants musuma dugg ci politique ba nii du ma dugg ci politique mais on parle au nom d'une famille bi nga xamante ne ils ont perdu leur enfant ils ont perdu un jeune si prometteur un jeune bi nga xamante ne tey quartier bi yëpp dañ lay naan perdre nañu un futur joueur professionnel parce que ku ko xamul ci Ziguinchor xam nga ko fépp fi nga xamante ne woote nañu football et cetera et cetera donc quand tu regardes so bi nga demee ci famille bi bi nga gisee état nit ñi nga xam ne mbetteel famille bi bu mu ko yegee ça a une très grande surprise que seen doom mu wàcc sur le terrain quelles que soient les raison et que nit mu taxaw de loin mu tiire ko bal mu wàcc waaw métti na trop ku mu daloon sa pap wala sa doom wala sa yaay di nga xam ne lu ñu nekk di def ci dëkk bi dafa métti gis nañu démb doon xew ci dëkk bi dañuy rey nit sax ñu ne lii moo ko rey mais man bu may soog a dem hôpital dam la ne carrément perforation bu ma bu ma percevoir lii bal la et yàlla def na ni bu ñu defee l'ensemble des procédures dara weddu ko ça a été confirmé il a été lâchement abattu par une balle ainsi ñu ngi koy yóbbu tuuba un souhait donc acheminé na ko depuis vers onze heures la ñu jël départ donc ainsi ñu ngi ci yoon nii xam naa incha su ñu yeggee waxtu bu ñu programmé suñu su leen fekkee Touba dina ñu def euh, inhumation bi voilà dañuy muñ parce que depuis le début ba tey gis nañ lu nekk sansation yu nekk traversé nañ ko mais dañuy sant yàlla parce que yàlla moo ñu indi si suuf moo xam ku nekk kañ la waxtuwam donc man damay waxaat famille bi yëpp parce que famille bi yëpp mun nañ muñ nañ peut-être ñu nekk ci biti ñoo bëgg ñu def leneen mais même papam dafa ne moom porte plaintul deful dara dafa jël yëpp mu delloo ko yàlla donc saa veut dire que jikko jullit la def jikko musulman la def loo tax man ma ne famille bi man maa ngi leen di jaajëfal muy grand frère mi muy papam muy yaayam muy ay sœuram muy ay rakk papam depuis début ba tey waxuñu leleen lu dul ñu jël lépp ñu delloo ko suñu borom bi nga xamante ne moom moom mooy dogal moo xam lu gën ak lu gënul dañuy jàpp ni yàlla moo def lu gën ci moom lu ñuy def lu ñu def lu dul di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana yu gën a kawe